foofu moom allazi mooy ka nga xam ne bi alamihi ci xeeti xam-xamam wa fuhoomihi ak ay déggam yu rafet wa bi joodihi ak ci ak tabeem axyaa la dekkale alxawaalima mbindeefi min bi laa tukkee ci ràpp ñu suñ bi daa fekkoon mbindeefi lépp ràpp màggat gooy waaye nag boole xam-xam ak xeet dégg yoo xam ne yàllaa ko jagleel ak tabe goo xam ne yàllaa ko jagleel yooyu la boole ba lu mu fekkoon mu ràpp rek yeesalaat na ko lu mu fekkoon mu dee dekkal na ko taxshaat na ragal ak daraax yi mu gaynde yi ba soxoo ak njàmbaaram wa tawat buxoo te koy sopp xóorul jinaani wa rafeti bëti jigéeni àjjana huwa moom achahiru mooy aji séeja ibnu jala mooy ibnu jala nee na gaynde ñu ngi sëriñ bi ndax daa ragal yàlla lépp ragal ko kon nag gaynde li muy ñëwee ñu ne ñu ñëwul sëriñ bi jigéeni àjjana yi suñ bi rek la ñuy ngéejoo ndax nim mel ak boroomam suñ bi nag mooy ki ñëpp xam kenn umpaliwu ko la waajo waxoon ne anam nu jalaa wa tallaahu tanaaya mata abaxil ximaamata taarifooni yooyu ngay jàng ci mu tammatu ibnu jalaa boobu lay wax foofu ne man maay ku siiw koo xam ne su ma tegee kaala ñu daal xam ne man a yoone suñ bi itam ñëpp ko xam kenn umpaliwu ko maasàlla mësta bocc fi yawmi misaali ci bisub xeex ba suyoo faxoo ay jaaseem illaa waxim du suyoo fi yi dara nga xam ne mbarum jaaseem ya tilka tulaa mooy yooye doq nee na bu taseeg noonu yàlla yi ba bocc jees yi muy xeexeek ñoom ba ay ngànnaayam daal jees ya da yàlla di gor rek doqi noon ya mel ne doqi noon ya ñoo soppiku ay ndari jeeseem fekk sëñ bi nag waxoon na ne ay ngànnaayam moom du ngànnaay yi ñu xam du jeesi du xeej du benn ci yooyu ñu xam way jàng xëcc bi mu tontoon tubaab yi yaa jumlatan xadd tàllatu bi dalaalihim man la ñu foofu li xeeti ngànnaay nit ñi xam rek tudd na ko waaye day wax ne man sama ngànnaay nangam la ba ci jees nee woon say fi lëvi yafru tulaaman kallazu tawxiduhu fa huwa ilahul waxidu jees nee mooy wéetal boroomam noonu la ko topp nag ba agsi ci in kaana lil aadaayi aslihatun biha xiifu fa aslihati tihi wa ujahidu jooduhu tabam nga ixtaqara xeet na alxayaa taw ba yowmal jasaab yowmal jawaisi ci bisub mayya wa diyaayuhu te ak leeram azra xeebloo na ak buka jant ba li man ñeel ka nga xam ne ijitala niir na nee na buñ dee séentu ay may ñu ne tey la ñu joxe may bisum yi maye ay mayam day xeet taw buy sotti maanaam mooy ëpp ay waame yu sotti leeram it day tax nga xeet leeru jant bi wa jamaaluhu ak taaram ka kamaalihi mu ngi mel ni ak matam huwa moom mu ko julin aji rusloo la badara bijaa weeru lëndëm ya waa antalaate kawe na xalaa kawaa kibi yi ci kaw biddiwam ya yàlla da ko booleel matuk biiram bitti defal ko taaru biiram bitti ba day rusloo sax weeru guddi fukk ak ñeent bu fekkee kenn du xoolati biddiw sabaqa raw na al afaadila way gën ña kullaha booli seen ñu defoon kullahum nag du tax way yu dëng bi fadailin ci ay nganeel wa fawaadilin ak ay may mala at yoo xam ne feesal nañu madaina ay dëkk wal fala ak àll ba madain jamhu madinatin la raw na ñu baax ñëpp ci nganeel yi ko yàlla defal ak may yu bari yi nga xam ne moom la yàlla jaarale ci moom muy sottiku ba fees taax yi fees kaw ga fees àll ba in naadalu léem dañuy settante foofu moom al muqartisu muy aji jam jumla aw jaraw wala ñuy daw dirayante lam yataliq kon du aju bi xubaar yi ci pëndam ba tilkal mala moomee mbooloo su wax ne buñ doon jongante ci ku dàq jëm nga xam ne kon mooy jong mooy dàq jëm ñëpp ñu rawante ba xam ku gën a gaaw ñu rawante moom buñ séen sax pëndam pëndam rek buñ ko séen aw faaxaroo wala ñu damoon te fexoo moom al asaasu mooy fondement ba li faxrihim ñeel seen ndam wa atammuhum te mooy gën jaa mat seen faxaran ci ndam wa abharuhum ci gën jaa taaru seen xoluñ ci ay takkaay ne buñ dee damonte nga xam ne moom du damu sax ndax du gis boppam waaye lu waay di damoo rek ci moom nga ko tibbee bu doon damu mooy gën a mën ñëpp ndam bu doon waaj mooy gën a rafet ñëpp takkaay gën a rafet ñëpp waajtaay sabaxat jiitu na loxo ñëw ko nuurul xinaayati leerub jagleelum yàlla nuuru nag mu dakkar la waaye xëy na kon alxinaayati ji mu laaf tamit mu ànnas moo ko fàggul am jigéen ba tax sabaxat am at yow ma xaala ci sama waxee loxum neel leen alastu ndax déet man bi rabbikum may seen boroom xaaloo ñu ne balaa xakay mu ne ba yàlla dajalee réew yi nga xam ne boobu sokk bu jëm yi da ci roof réew yi te waxante ñu ñoom ne leen ndax du seen boroom ñëpp ne axakay am na ñu wax axakay te mu dëgg ci ñoom am ñu ko wax ngir rek béréb ba laaj loola waaye wax ga axakay neexu leen ñooñu ne ñoo soppi ko ay yéefar bi ñëwee adduna mu ne nag bis boobee la ko yàlla tibbaloon cër bi mu ko tibbal bis boobu la ko jagleeloon jagleel gi mu am loolu day lu yàgg yàgg ci cosaan asqal mawaaridi mooy gën jaa mën a nand lay rootukaay yi kullihaa mbooli seen bi mu attaqin ci lu ñu yàggal ba ngir di ci rotam nga asfal mawaari di mooy gën jaa selli rootukaay ya mën xalan cib naanukaay dafa bind nag asqal mawaari da kullahaa waaye defe naa dafa juum rek asqal mawaari di asqa xamal tax dëgg la dugg nañ ci fenal fii wax ne sëñ bi mooy rootukaay bi gën a neex ci mboolem rootukaay yi mooy rootukaay bi gën a sell ci rootukaay yi boo bëggee lu sell looy mandee ko doo marati mukk mukk rek demal rooti ci sëriñ bi waxamaa humoo te aar na leen min kay di iblis ci pexem iblis ak lëf yi mi nga xam ne imraama doon sàkku na xurban ak jóge min ximaahu ci kaaraangeem la yéex falan kon def na ko wacc gàcceel ko yéex falan def na ko toroxal gàcceel ko sëriñ bi moo aar jullit ñi rawante ne taalibe yi suñ bi leen aar ba iblis mën leen yàqal ndax iblis fu mu jegee kaaraangeem sëñ bi maanaam iblis fu mu jegee lu bokk ci sëñ bi rek yàlla gàcceel ko toroxal ko delloo ko gannaaw watala topp na mooy sëriñ bi alxal yi aji kawe ji wa kitaabaxoo te mu jàng téeréem ba xam nga talaa daa am ñaari prix day firi topp di firi jàng yaar yëpp la andi foofu nag bu delloo ci alxal yi firi ak topp delloo ci kitaaba firi ak jàng fa ataabaxoo te mu faye ko biriba yi ci ngërëmam la bina fii ci la nga xam ne talaa topp na ko ñendeef yi ak la nga xam ne talaa jàng na ko dina fi jooju dina fi mooy doon cosaan ñu may sol ni nga xamul rek daa wax ne sëñ bi dafa boole topp yàlla ak jàng téereb yàlla bi yàlla fay ko ci topp gi mu koy topp fay ko ci jàng gi muy jàng téereem bi yaa ayyuha sanadu wóorukaay bi fii bi nga xam ne xoo moom malja yi mooy sama wóorukaay lam at taxis jàpp ma wërëkk nañ benn ponk si wax bi mooy moom wanaal ilan jàpp ma benn wóorukaay bi mooy moom yaa ayyuhal xayfu yow taw bi alxiwaasu bi ab xeet nekkat li kulli man li kulli man ñeel képp koo xam ne abaha yoor yooru na maanaam mujj na mu kabbal njëkk mu jéng bi maa ci la nga xam ne kasabat fàggu na ko yeddaahu yaari loxoom suñ bi nga xam ne yaay xeet li bu dema dem ba ay ñaawteefam bari ba mu ne ko ñu yeew joñ ko yaa mën a xeet li ko mel noonu tey woote ñu naka man ataytu ko dikkal naa la raajiyan mbir may aji yaakaar wa mu amilan tey aji yaakaar mbaa tey aji mi rek benn lañ wala ñu ama te amul moroom anta yow mu amalan ci ko ñu yaakaar wa mu kammalan tey ko ñu matal wala wa mu kammilan tey aji matal dana ko sëñ bi damaa ñëw ci yow ndax yaakaar fajub aajo te yow nag ku la yaakaar rek sooy boo xelam dal lam yaakaaroon lépp lay am yaakaaram dos mukk bi xawaa ijjin ngir ay aajo wa jawaax yin ak ay soxla abd martaha yoo xam ne nëbb naa leen laakin waaye damir yi sama xol la muy sal mësta dañ moo salan lum jokk bi nga ci yow damaa ñëw ci yow amee ay aajo ak ay soxla yoo xam ne yàlla xam ne mu ngi ci sama biir mu ëmb ko ñu tax maa jóg sama xol nag moom mi ngi baq ci yow yow rek dem laa yank yow laa yaakaar ci yàlla fajal ma aajo yeeg soxla yi mu taw si lan mbiru may aji jottalikoo bi xasidatin ci ak xasida li gënaa ko nga jëm ci seen meññet wa gënaa gikum ak seenug wàll bu tawax si lan biñ may aji jotlikoo bi rajaayikum ci seenug yaakaar damaa way ak xasida nag bëgg cee jaare ba am ci yéen li ma bëgg ànd ak yaakaar boo xam ne jàpp naa ne rek moom du tas mukk-mukk xaasa seetlu na wala jombante naag li jóodi ko ñeel sa tab gi an ao bu may dellu wala mu anal te amuma maa li nga xam ne rumtu sàkku naa ko mën ko ci yow bu fawqa zalika ak sax lu kaw loolee mës dalan ak lu mën di doon loolu yàlla defal ci tabe na tax na xam naa ne jombante na maag dellu rek ak loxoy kese sama aaju fajuwut déedéet li ma wóor koy mooy daay am ba am lu ëpp la ma doon mébéta ko yaakaar yaa xiblatal amaali yow xiblat yaakaar ya ka ambata xaasidin tey kaabak aji jublu indi naka man ataytu ko dikkal naa la taa ifan mbir may aji wër wa mu qabbilan tey aji foon wa maqaamu ibrahima te maqaamu ibrahim muqarrabun luñ jegeel la min ko ci yow wa muhazamun te ku ñu màggal nga saxiba kook àndonte naag alma asira ngëneel ya wal ila ak xéewal dina sëriñ bi ni yàlla defee kaaba ga ñu di ko dëgmal di fóon dajee nekk ci kaaba ga ndax yaakaar am luñ bëgg ci yàlla xam naa ne yow mii day yàllaa la def ngay xib nag yaakaar yi doomi aadama yi maanaam doomi aadama ju am yaakaar rek yow lay dëgmal si jàpp ne ba ak see fi yow rek yàlla faj aajoom kon nag man ñëw naa yaay sama kaaba yaay sama alxajar al aswad yow laay wër yow laay fóon te xam naa ne it maqaam ibrahim mu ngi foofu fi yow rek mu su ñëwee fi yow rek mel na ne dem naa ca kaaba ga bu wër ko fóon doj wa dem julli ñaar rakka ca maqaamu ibrahim yaay waaju yàlla màggal foo toll mu boole laag ay ñaneelam ak i xéewalam nga di ko joxewaat ngir yàlla fa xasaa yenaalu xëy na lee bu amee mashar yun pëjug mashar ku dëkk mashar maraamaxoo cekkuteefam bi ko ci yow waa saa ko dikkal na ximaaka sa kaaraange mënal mënaa tey mënaay mébét ya mu taxallilan mbir mu ñu aji yeewi ko war safaa te sell lëxoo ñeel ko di safaa safaa ika ci safaak sag sellu mawridun ab rootukaay wata nasala te mu wàcc bi marwati miraati ci marway seetu ba min ko ci yow mu ne ko man day ibrahima joob al mashar yi lañ may wax ma dëkk mashar kon nag mel na ne ku dëkk mashar dëkk ci sa kaaraange li nga xam ne daa mel ne minaa googee nga xam ne ku yeewu ko ci aj ga foofu ngay jëkk di fa sànni jamra ba ba nga fay bàyyi ko ñibbi sa kaaraange daa mel ne minaa googee lu waay bëgg rek ci xeeti mébét bu dikkee am ko kon nag man ñu bàyyi ko machar yaakaar naa ne rek li ma bëgg lépp lépp danaa ko amee ci yow dafa mel ne it sell gi la yàlla defal mooy safaa ba tey ku bëgg a xam xam-xami kumpa jàkkaarloog lam umpale woon mu ñëw rek ne la jàkk ndax da nga di ab seetu lu waay bëgg a gis mu ñëw fi yow dal di koy gis baatu almiraatu daa niroonteeg almarootu ci ab yax baatu safa bi firi aw doj dafa niroonteeg baatu safaawu bi firi ak sell mu ne ko da ngay rootukaay bu sell sell sell mel ne kon naa la tudde safaa ku umpale dara ci aw mbiram na ñëw ci yow kumpaam daal di dañ kon ab seetu nga te naa la tudde marwa ku bàyyi koo mashar nag ñëw ci yow mi nga xam ne yaay mi nan ñëw ci yow mi nga xam ne yaay safa yaay marwa du def lu may rek am cokk téefam lépp du amati mu ñuy geesu xarafaatu jóodika arafaatu sattabe ji na xoo dikkal nañ ko bi maarifin ci ay xam-xam wa xawaarifin ak ay njekk faxadaate mu xëy mutahallilan di aji bépp bi ci moom wa muhallilan te aji wax laa ilaha illallah wa mukabbiran te aji kabbar wa musabxilan te aji sabbal wa muhasbilan te aji wax xasbunallah wa nimal wakil wa muxawqilan te aji wax laa xawla wala quwata wa muhamdilan te aji wax alhamdulillah wa muxawximan te aji wax xayya xala لكي حي على الفلاح من قبل ذيك تجيك يويه مبسملا تأجي بسم الله الرحمن الرحيم متبتلا تأجي بدكو متوكلا تأجي وكيلو متجملا تأجي رفتك منجري الله من سنبي سطبقي تبطم تخمي سالو تمني عرفات sabab googu nag ku bàyyi koo machar di mën ni ñëw ci yow ca lay amee xeeti xam-xam yeeg xeeti njëkk yu xolam sedd guu danaa ba mu la gisee banaa ñëw leen ñëw leen texe gaa ngi nii di wax laa ilaha illallah di wax allahu akbar di wax subhanallah di wax xasbunallah di wax laa xawla wala quwata di wax alhamdulillah fekk sax mu jiital bismillahi irrahmani irahim arafa ña fay taxaw dañ fay nekk di sàbbalaka kàbbaraka wax laa ilaha illallah xasbunallah yi demee noonu ne ko man nag sa tabe gi mooy sama arafaat moo tax ñëw naa sa tabe gi may ma ay xeeti xam-xam ak i may yu dul jeex ma sax nag ci sàbbaal baat yu tedd yi gannaaw ba ma tàmbalee bismillahi rahmaani rahim te jéem a beddi ko ngir jaamu saa boroom tey wakkirlu ci moom tey rafetal saa moom loolu lépp loolu lépp sag tab ak sag mbaax rek moo ma ko may arbaaka yàlla la gërëmloo rabbi sama boroom yaa malaadu yow wóorukaay bi kama tasha ni nga bëggee rabbul xibaadi yàlla mi boroom jaam ni wa kaana te yàlla nekk xumruka sa bund at wala di gën a yàgg ba addaama te yàlla na saxal nafxaka sa njariñ lil bariyati ñeel mbindeef yi kulli xaam boole seen dawmal baqaay kem saxuk des ga li man ñeel yàlla mi nga xam ne xabaaka may na la alma amala yaakaar ja muy mébét ma yàlla mi la def nga wóorukaay di làqukaay ku làqu ci yow raw yam na si gën a bàyyi gën a yàggal sa dund lépp ànd ak ngërëmam luy dolli koo ko dolliku yàlla mi la def ngay njëriñal di def yépp yépp yal na la fi saxal melaw sax des di moom yàlla rek moo ko melawoo waaye nag yal na la ko rafaatale bàyyi la fi rek ngay njëriñal mbindeef yi dina ba yenaa tërëgee sunu yonante al miftaaxi ka di ak caabi ahmada te mooy ahmad man ahmad mu nga xam ne loxoo ñeel na ko fadlun ngeneel xadi atala lool kawe na ala rusli ca ka yonante alkiraami ña dee tedd salla yàlla na dolli tedd nga alayhi ci moom ilahuna sunu bóor wa alayhimu ak ci ñoom itam wa ala sihaabihimu ak ci seeni sahaaba maxan boole seen maxaman ànd képp koo xam ne talaa topp na leen asga salaatin gën jaa selli dooli teral bi salaami ànd ak dooli wóolu bi leen tihaa ci ludul taytal maa basmala li fekk wax na bismillahi albaadi aji tàmbali ja waxamdala te mu wax alhamdulillahi mukmilan mbir mu muy aji matal lim ñaanu sun bi la ko wax ne ko na ko yàlla defal ci dara jonante bi nga xam ne yàllaa ko def muy ceew bi yépp yiwu muy jëme ci jaam ñi muy koo xam ne yàllaa ko gënal ci bindeef yépp bu gënal ko sax ci kaw yonente yi dana ko yàlla dolli teraanga moom ci boppam ak mboolem yonente ci des ak i saxaabaam ak yonente bu ne ak i saxaabaam ak yonente bu ne ak ña ko topp ñoom ñëpp yàlla li yàlla boole gën jaa selli teral ak jàmm li fekk nga xam ne kay tàmbali ma ngay wax bismillahi te bu demee bay àggale di wax alhamdulillah walahu aydan li rabbi ñeel na sama boroom taxala kawe na alhamdu cant ga wallaahu te yàlla akbar moo gën a màgg wa awsaxu te gën a yaatu if baalan ci ak gënal wa ala te gën a kawe wa aqdaru te gën a attan wa azka salaatillahi gën jaa selli teral yàlla tuma salaamihi topp doon yoonoom alal mustafa yàlla nekk ca kañu tànn wal aali ak ñooñ ne maadaama li fekk sax na yóbbu këru desi ko tudd mi ngi tàmbalee xasida gi sant yàlla mi nga xam ne moom rek a màgg moo yaatu ngëneel ba ñëpp xaj ca moo kawe moo man lépp sañ lépp yàlla moomu lay tàmbalee sant ko di ko ñaanit mu dolli yonante bi ak ay gaayam teraanga ji gën a sell ak jàmm ji gën a matale li rek ñuy tudd rek tur yonante bi yal na ko yàlla yi saxalal salaatu ak salaamu mook ay gaayam loolu lay tàmbalee xasida gi boo baax du gannaaw sant yàlla julli ci yonante bi fa aw laa maa gën jaayooyu la nga xam ne intanaa sonne na ko kullu mufliqin jépp aji dépp madiyahu malaadin mooy tagg ab wóorukaay boo xam ne fadluhu ngëneelam day sa yux saru defu ko mën a takk gannaaw bi mu tàmbalee xasida gi sant yàlla julli ci yonante bi nee na li may wax daal mooy képp ku mën a wax bañ lay yéem la nga war a gën a jëmal sa yitte mooy tagg suñ tuubaa mi nga xam ne yàllaa ko def muy làqtukaay di ab rawukaay boo xam ne ku làqu ca moom rek raw nga faaw di koo xam ne ngëneel li ko yàlla defal mënu su koo xam ak a takk mufliq mooy suñu aji tépp ci wolof waaye dañ ci jublu ku mën a wax koo xam ne bu waxee rek wax lu yéeme yéeme mu ne nag ku yàlla may nga mën a waxee noonu daal sa yitte yépp daa war a jëm ci tagg sëriñ bi rek leneen loo jëmale say wax yàq nga say wax malaajun ab wóorukaay la laa ga ba wóoru na bi ci moom albariyatu mindee fi kulluhaa mbooli seen aaribuhaa seeni arab wal ajamoona ak làkkat ya in ubhiroo ndeem tiitaleef na leen dina làqatukaay la boo xam ne mbindeef yépp ci moom lañu ñëw làqatu ci moom buñ tiitee moo xam ña nekk ay arab ak ñu nekkul ay arab huwa moom ibnu xabibillahi mooy doomi xabibillah ahmadu turam mooy ahmad man ka nga xam ne laxoo ñeel na ko mazaya ay ngëneel ka misli ramli yu mel ne feppi beeñ bi ba li fi nekk yooyu ñoom ngëneel yooyu ak sëru ñoo gën a bari feppi suuf yi nee na abibullahi mooy maamam ñu koy wax ahmadu bamba muy koo xam ne ko yàlla may ci ngëneel daa baree bari ba nga xam ne mu ëpp feppi suuf yi fa min ha bokk na ci ngëneel yooyee la xamrullahi dundug yàlla mooy sama ngi taqwa ilahi yi ragal buuram ba wa xilmun akuk lawet waa ilmun ak xam-xam boo xam ne lay sa yux siihi du ko mën a takk mis barun xalima nee na waat na ci yàlla ne bokk na ca ngëneelee mbaa mu gën caa rëy ni mu ragale yàlla ni mu ragale yàlla bokk na ci lu ko yàlla beral may ko ko akuk lawetam ak xam-xam bi nga xam ne mëne su koo bind ci xalima wa zuhdun akuk dëddu wa bondun akuk sori min xaraamin jëpp aji araam wa mushkilin ak aji nant wa axdun akuk jàpp bil awlaa ca la gën a yey idd yu sirru ba gën a nëbbu wayoo jëxaru ak ba muy biral bokk na ci ngëneel li ko yàlla may wan gannaaw lépp lu bokkut ak yàlla sori lépp lu araam mbaalu lënt lu nekk itam la ci gën a yey lay jàpp maanaam du yem rek ci bàyyi lu araam ak lu ñu sib waaye day jàpp ci la gën a yey la gën a baax rek faaw moom lay taamu ci mbir mu ne bu dee làq ak bu dee feeñal lépp daal la féete kaw rek ci lay jàpp wa wajhun akuk kanam ahaara goo xam ne abal na albadara weer wa xusnan ab taar wa bahjatan akub taar ba tey wa qalbun akub xol kama il mus ni boobu mi ngi mel ne ndoxum niir wa ba li fi nekk huwa moom ab xaw moo gën a làpp yàllaa ko may xar kanam boo xam ne li weer wuy taaru taaru bu feeñee ci guddi fukki ñeent day mel ni kanam ak sëriñ bi moo abal weer wi taaram boobu ak leeraayam boobu yàlla may ko xol boo xam daa set wecc ba moo gën a set ndoxum taw mi door a wàcc bàyyi ko ci asamaan nga xam ne dalagul fenn ba loolu di ko tilimal nam laabe xolum bee ko gën a làpp wa rushidun akuk jub wa irshaadun akuk jubal wa ixyaau sunnatin ak dundal sunna wa mahwu btidaahin ak far bidaa xay su yax faa fu mu fi dana nëbbu wa yazharu ak fu mu fi dana feeñ len yàllaa ko taw fi xale jub tey jubal defar lépp luy xeetu bi daa ba mu set saxoo dundal sunna nag ak foo ko mën di fekk mu làqoog mu fés ñoo ci yemoo loolu rek moo di liggéeyam far bidaa ak dundal sunna waxulxun ak jikko ka az ka azhaari riyaad yi kooku mu ngi mel ne tóor tóor yi dër ya la taafatan cig ñëwant wala cig sew waxuusan ak ci ab taar waxuus nan ak ci ab taar ajalu waaw wallaahi giin naa ci yàlla azharu moo gën a tóor-tóor mbaa moo gën a rafet sax mun til ko ci yooyee dër jikko jikko yàlla may dafa rafet lool ba boo ko doon misaal lu bët mën a tegu dañ koy misaalee dër yooyu nga xam ne dañoo rafet lool neex a xool lool ndax dañu tóor-tóoree ne loolu misaal la ci waaye waat naa ci yàlla ne jikkoom moo gën a rafet sax bët yooyu wajoodun akuk tag ka ànnal waabiliina daanaka waame ya taallamat jànge nañu nadun ak tab minhu ci moom idu xammat ba ñu matalee wa axyat te ñu dundal wa tushkaru ba dee fi leen sant tab gi ko yàlla may moo raw waame dafa mel ne waame ci sëñ bi la jàngee sotti googu muy sotti waame yi li ñuy bari bari ak la ñuy sotti la muy bari ba day mel ne ci sëñ bi lañ ko jàngee su waame yi sottee ba ñu yéem ndox mi baree ba ko soxla woon taw di sant xamal ne loolu tab gu sëñ bee ëpp loola xalaa ànd na ba san ànd ak naka ak njàmbaar min hu gu tukkee ci moom inda ut inda udaatihi fa noonam ya yoon yu mbira nooy laxoo ñeel ko fil xaabi ca gott ba lay sun gar xadon farun buy aji tal xadon